Hoor je hier met de gaan? Van een lekker beurden gaan. Huh? Huh? li moo tax wóoyee soof quoi da ngay tegante ak ñoom jëf gaan ñu lay kii mais cooy jiwul baaxul ñëw yi rek maa ne jëli moom su plaatee maag moom la cooy jiwul moo war a gaaw ñëw gaan mooy loolu lan la ma kan di ngay daal di ko yóbbu ma des pannes, des pannes, du côté Quand ça va Ça va, pour là, Pour là, Là, là. Kiru. An, an. Yo. Aya, daro, daro, daro, daro. Ani tika. من إن زعلت تيرا an waɗɗaɗam raay waɗɗamin raay ha miɗan dedda kalis amma yawda hakkude ma e allah hanade yabugoto yo yow yow loyi joyi sama kalis yo ko raymo raymo daadi ma e raay bammo ñoro ko joyi sama kalis ko daadi dem ken man ka yow man mi yow homa kiya homa e sama kalis o sama toto sama kalis an yow yow daadi ngay raay yow daadi ma e raay man bammo ñoro ko joyi sama kalis ko daadi dem tam sama kalis e an an may ray haydara it it. moo koy dóoree nii. billaay mi mi mi moo dem tun tàpp nii tan waaye man dóor ko de man dama ko doon xool nag gi dafa rafet de. boo ko doon xool nii moom dina nekk di yow. waaw li def nii dafa danger la wax ah. Eh. eh eh li nga xam ne man pël laa de def ndànk eh man pël laa de gërëm a yor wax ju bari ji mënu ma ko def dindiwu ma ko wax. ah ku ne nga la. pompel laa wax ah? pompel fi nga taxaw. li pompel laa wax wax ju bari ji mënu ma tànk bi day eh, pompel la taxaw wax ju bari ji mënu ma an an man mag laa am na ñaari doom. pompel laa la wax. sama ñaari doom am naa ko nga bëgg. pompel laa la wax nga naan may. barki rasulilah lii. gaawal yi nga naan may waay. waaw ana pomp kay di doy na kay. yow sama ak dina daal de. Eh, man sëriñ laa de am na lu may def bu ko defee doo puub te. gaawal tuur yi. waaw doy kay. bậm nhật bậm nhật à bậm nhật yau wani wani entraînement man dem doon def sport bam ñam dem doon def sport ku la dàq dem doon def sport dégg maa ngi loolu d'accord Pape Niang bi jëm Pape Niang sport bi moo métti Pape Niang <laughs> yow dóor yi yi ma dóor kër xamul naa ndigam daw bi métti Pape Niang Pape Niang yow may def sama sport yow nga may reetaan ngay teg la ñaari fan jiw sama kër di ma ñuus si ay taat ba sama taat yi di néew xamoon ngeen ñam ba suba <laughs> kooku ak taal yu forox yi <laughs> naa gis booy bi la ji yow naa ko neexal may ko junni doomi nga yaakaar dóor yi ma dóor dina yombee noonu imbécile ba alam buy ñëw <laughs> booy na ko de xaw ko dóor waaye rey na ko doomi